bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki dëkkandoo yi noo ngi gën a sant suñ borom bu baax rawatina bi mu nu booleeg sëriñ bi sëriñ bi bu baax di leen xamal ne faggul nanu sunu njëriñi tey ak sunu njëriñi ëllëg lépp faggu na ko noo koy sant bu baax pàgg teef fa tabaarakallaahu yaatu na. liñ ci a jiital ci jataay bi jataay rek. liñ ci a jiital mooy jataay bi rek. sant ko ci fag gi mu ñaari Cheikh Ahmadou fag gi mu nu ñaari Serigne Fadilu. kii di imaamu taraawix kii di imaamu salaatil aydayni di gone yu ndaw di ay gone yu ndaw ñu waajal leen waajub lislaam bu mat sëkk ñu waajal leen waajub lislaam bu mat sëkk dëppal leen dëppal lislaam dëppale lislaam muy alxuraan muy noo ngi gën a sant sëriñ bu baax. noo ngi gën a sant sëriñ bi bu baax. ndax loolu lépp pàgguteefu. ndax loolu lépp pàgguteefu. ñi ngi mu madinatul munawwara ci seen ilimaan. ne ñeewunu madinatul ci seen ilimaan. ñeewunu it makkatal mukarrama ci seen ilimaan. ñeewunu it makkatal mukarrama ci seen ilimaan. loolu lépp nag. loolu lépp nag. fàggu sëriñ bi rek la. fàggu sëriñ bi rek noo ngi koy sant bu baax kon nag noo ngi koy sant bu baax moom sëriñ Tuubaa bu loolu wéyee nag bu loolu wéyee ñu farlu nu jooyal lislaam ñu farlu ci dool ci jooy ci jooyal lislaam ñu ñu ñu farlu ci jooyal lislaam loolu moo di loolu moo di taxawaayu lislaam taxawaayu lislaam ak doxiinam ak ak ni mu gaawee amim téq ak ni mu gaawee am am téq fanweeri at yu tegal yu tegal rek fanweeri at yu tegal rek mbooloo mi mel ne lépp mépp a soppi mbooloo mi mel ne lépp a ci li si li fi gën ci mbindeef bàyyi woon ci ngeen ci mbindeef bàyyi woon ci li fi ngeen ji mbindeef bàyyi woon muy liggéey bu rëy bii di lislaam mat sëkk mat sëkk na mu ko waxee woon rek al yawma akmaltu lakum diinakum na ko waxee woon rek ne al yawma akmaltu lakum diinakum ñu dox tuuti at yu néew ñu dox tuuti at yu néew lépp xaw a dellu ca na meloon. lépp xaw a dellu ca na meloon. ñuy rey sëti yonent bi. ñuy rey sëti yonent bi. ñooy sëti yonent bi. ñuy rey. ñu ah ñu rey sëti yonent bi. ñuy rey sëti yonent bi. ñuy rey sëti yonent bi. di jàpp ay sëtam yu jigéen. di jàpp ay sëtam yu jigéen. ni ki jàppum jaam. ni ki jàppum jaam. benn yàqu-yàqu mënu ko defe loolu defe naa benn yàqu-yàqu mënu ko ëpp. lislaam di dem. lislaam di dem. ci noonu rek nag. ci noonu yi rek nag. di gën lëj rek. diggante gën lëj rek. di gën di lëndëm. di gën di lëndëm. loolu moo waral. loolu moo waral. jàmbaari lislaam yi. jàmbaari lislaam yi. gannaaw saxaabatu rasul. gannaaw saxaabatu rasul. ñu jóg ñu jóg. fas yéene taxaw taxawaayu yonent bi. yi ne taxaw taxawaay yonent bi. fas yéene yi fas yéene yeesal lislaam. fas yéene yeesal lislaam. ak dundal ko. ak dundal ko. ak jëlee ko ci tumuraankeem googu. ak jëlee ko ci tumuraankeem googu yi. jàmbaari lislaam yooyu nag. jàmbaari yi. ku xam ne ci la sëriñ bi bokk. ku xam na ne ci bi bokk. gis nañ ni mu ni mu jógee. gis nañ ni mu jógee. dafa mel ni da àndaale. dafa mel ni da koo àndaale. dunde ko dunde ko lépp di jóg ci lislaam lépp di jóg ci lislaam am pasteefu taxaw delloo ko fa mu newoon am pasteefu taxaw delloo ko fa mu newoon moom ñu jëkk ànd ak moom ba ñu jëkk a ànd ak moom xaw na leen def ni saxaabatu rasul xaw na leen def ni saxaabatu rasul mën na leen caa yéegali te ñoom mën na si ne leen a yéegali te ñoom kon. kon. fi ñu toll nii. fii ñu tol nii. war na noo tal. war na noo taxaw. tal tal war na noo tal. leneen. lu jógaat ci lislaam. lu jógaat ci lislaam. jàmbaari lislaam yooyu. jàmbaari lislaam yooyu. seen taxawaay yooyu. seen taxawaay yooyu. ak seen liggéey yu rëy yooyu. seen liggéey yu rëy yooyu. te sëriñ bokk ci ñoom. te sëriñ bi bokk ci ñoom. kon. kon. il faut que ñu jooyal ñu war a jooyal lislaam. il faut ñu war a jooyal lislaam. ndax moom. ndax moom. bu dundee. bu dundee. yoon yoon yëpp dund. bu tumurankee. bu tumurankee. yoon yëpp tumurankee. yoon yëpp tumurankee. kon. kon fii ni toll nii. fii ñu toll nii. jullit yëpp. jullit yëpp. dañoo war a jógaat ci lislaam. dañoo war a jógaat lislaam. kem kattan. kem kattan. jéem koo delloo fa mu newoon. ba jéem koo delloo fa mu newoon. jéem koo suqali ba mu ba dund. jéem koo suqali ba mu dund. di ko gën di dundal. di ko gën di dundal. loolu fii ñu toll. loolu fii ñu toll. naka jekk loolu la sax. naka jekk noonu la meloon sax. lu toll ni junniy at ak ñeenti téeméer yu tegal. lu toll ni junniy at ñeenti téeméer yu tegal. muy gën di lëj di gën di lëndëm. muy gën di lëj di gën di lëndëm. ba ci jamono jii. ba ci suñu jamono jii. kon. kon war noo tal leneen. war nañoo tal leneen. lu dul dundal yëkkati lislaam. lu dul dundal ak yëkkati lislaam. taxa taxaw taxaw ci tem. te taxaw ci tem. def ci suñu lépp. def ci suñu lépp loolu mooy suñu warteef. loolu mooy suñu warteef. loolu moom lan war a tal. nee na loolu moom lan war a tal. bala tal yoon yi bala lan loo tal yoon yi. dañuy tal lislaam. dañ tal lislaam. bu lislaam dundee. bu lislaam dundee. yoon yëpp dund. yoon yëpp dund. kon nag. kon nag. il faut que. il faut que. nun nu jooyal jooyal lislaam. il faut que nu jooyal lislaam. boole ko ci liggéey li ñuy liggéeyal sëriñ bi. ñuy liggéeyal sëriñ bi. il faut nu jooy. waaye loolu lépp nag. waaye loolu lépp nag. doyati doomu aadama rek la. doyati doomu aadama rek la. suñu borom. ndax suñu borom. mooy def mooy def mooy dindi. mooy dindi. te xam na ni muy def. te xam na ni muy def. te loolu lépp moo ma. te loolu lépp moo ma. kon. kon lu nu jooy jooy jooy. lu nu jooy jooy jooy. ni far suñuy rongoñ. nañ far suñuy rongoñ. donc loolu loolu delloo lépp ci moom. loolu delloo lépp ci moom. bu ñu delloo lépp ci moom. bu ñu delloo lépp ci moom. dellusiwaat ci sëriñ bi. dellusiwaat ci sëriñ bi. góorgóorlu bu baax. góor lu bu baax. fas yéene koo sagalal lislaam. fas fas yéene koo sagalal lislaam. lu ñu ko li ñu lu mu néew néew. li ñu koy defal lu néew néew. sagalal ko lislaam moo ci war a jiitu. sagalal ko lislaam ci war a jiitu. sagalal ko lislaam nag. sagalal ko lislaam mooy fonk lislaam rek. li mu digle. li mu digle. ñu di ñu di ci góorgóorlu kem kàttan. ñu di ci góorgóorlu suñu kem kàttan. li mu tere. li mu tere. ñu di ci góorgóorlu suñu kem kàttan. suñ ñu di ci góorgóorlu suñu suñu kem kàttan ca daw alimtisaal wal ijtinaab. alimtisaal wal ijtinaab. loolu. loolu. mooy mooy mooy mooy mooy lislaam. mooy lislaam. la ca dolliku. la ca dolliku. mu dig taalibe. moo dig taalibe. ak taalibe. mooy makaarimul axlaaq rek. mooy makaarimul axlaaq rek. kon. kon nanu góorgóorlu bu baax. nanu góorgóorlu bu baax ci fonk lislaam ji diine ji di fas lislaam ji. ci fonk lislaam ji. sunu kem kattan. sunu kem kattan. la ca la ko dalee ca gone nga xam ne. julli nga koy door a war. la ca la ko dalee ca gone ga nga xam ne. julli nga koy door a war. du leen koy doog a war. ak mag mi nga xam ne mënatu ko daanaka mënatu ko. ak mag mi nga xam ne daanaka mënatu ko. ak ñi ci diggante bi. ak ñi ci diggante bi ñëpp. ñun ñëpp nañu góorgóorlu. nañu góorgóorlu. gën a gën a fas yéene sagalal sëriñ bi. lislaam gën a fas bi lislaam. nañ fonk julli fonk mooy waxtu yi juróom. gën a fonk ponk yi. gën a fonk ponk yi. suñu kem kattan. suñu kem kattan. loolu. loolu. buñ ko sàggane buñ ko sàggane buñ ko caaxaane buñ ko caaxaane buñ ko daal buñ ko rafetale njot buñ ko rafete njot warteef bu nu war la warteef bu nu war la nañ nañ ci góorgóorlu suñu kem kàttan nañ ci góorgóorlu suñu kem kàttan fonk suñu diine fonk suñu diine nan ko fonk nan ko fonk fonk suñu taalibe nag fonk suñu taalibe nag ndax ak taalibe bu amut ndax ak taalibe bu amut dana li dana jafe dana jafe. lislaam am li mu bëgg. lislaam am li mu bëgg. kon. kon nañu góorgóorlu bu baax. nañu góorgóorlu bu baax. ci ci njub. li ko dalee gone yu ndaw yu tuuti li ko dalee gone yu ndaw yu tuuti ba ci mag ñi nga xam ne ñi ngi bëgg a ba ci mag ñi nga xam ne ñi ngi bëgg a kenn ku ci noonu. kenn ku ne ci na xool boppam. na xool boppam. jéem a teg tànkam ci siraatal mustaqim. jéem a ci siraatal mustaqim. loolu mooy teg tànkam ci njub rek. loolu mooy teg tànkam ci njub nag. njub nag. mel na ñaari njubla la. mel na ni ñaari njub ñaari njubla la. ñaari njub la ñaari njub njubug doomu aadama. gi nga xam ne. gi nga xam ne. ñaari ñett buñ dee buñ dee fee. ñaari boo leen xoolee fee. ñaari jëmm buñ nee fee. man nga caa xam ne jub. man nga caa xàmmee ki jub. ak ka dëng. nag. ka jub nag. day jariñ dama day mën a jariñ boppam. tey jariñ boppam ndax ñëpp dañ koy xoole xoole jub googee ndax ñëpp dañ koy fonke jub googee ñëpp mën koo jariñoo ñëpp mën koo jariñoo jubug yàlla nag jubug yàlla nag mooy def ndigal bàyyi tere mooy def ndigal bàyyi tere yàlla digle lépp li yàlla digle lépp ko jéem a xam di ko jéem a xam ko jéem a def di ko jéem a def yàlla tere lépp li yàlla tere lépp ci biir ak ci biti ci biir ak biti di ko jéem a xam ñu di ko jéem a xam di ko jéem def di ko jéem a def lu dul loolu lu loolu sàggante rek la sàggante lay indi kon nanu xool suñu bopp. kon nanu xool suñu bopp. wone gu ndaw gi. gone gu ndaw gi. waxambaane ma. waxambaane wi. ña ca topp. ña ca topp. ba ci mag ñi. ba ci mag ñi. nañu kenn ku na xool boppam. kon kenn ku ne na xool boppam. na xool boppam ci ci ci ci njub. na xool boppam. ci njub ci njub. xool boppam ci lislaam. xool boppam ci lislaam. xool boppam ci makaarimul axlaaq. xool boppam ci makaarimul axlaaq. bala ngaa am am taalibe. bala ngaa amul taalibe. balaa taa taalibe gi mu sotti. balaa taalibe gi sotti bala moo rafet. bala moo rafet il faut que ñu jëfee makaarimu axlaaq. foofu il faut que ñu jëfandikoo. suñu borom ci coobareem suñu borom ci moo nu nattoo. moo nu nattoo moo nu nattoo. def ci ñun ay jikko yu baax. def ci nun ay jikko yu baax. def ci ñun jikko yu bon. def ci ñun jikko yu bon. koy koy lan la ñuy njëkk a lan la ñuy njëkk waaye la ñuy njëkk a jóg. mooy fas yéene gën a nas nasaxal jikko yu bon yi. mooy fas yéene gën a nasaxal jikko yu. ba mën a jëfee jëfandikoo jikko yu baax ba mën a jëfandikoo jikko yu baax. loolu rek la tënk baa ngoog. loolu yi rek la yomb na lool yomb na lool. julli jafewul julli jafewul. waaw góorgóorlu nag ba di ko jëf ci waxtu wa. waaw ñuy góorgóorlu di ko booleeg laab di ko booleeg laab. ponk yi itam. ponk yi itam. la la la la koy fonk lépp. waaw la koy fonk lépp. muy muy weeru war mag bu teel tedd bi mu mel ni warugar mun mel ni weeru lu mel ni weeru tedd bii nu jógee. mu mel lu mel ni weeru tedd bii nu jógee. fonk ko nan ko war a fonk. ñu lépp moom. loolu mooy lépp. loolu lépp. loolu lépp. Eh, bi noppi na ci. sëñ bi noppi na ci. fàggul nañu lépp. fàggul nañu lépp. bayul dara. bayul dara. wax na. wax na bind na. bind na jëf na na. kon. kon amul wenn lay. amul wen lay. buñ mënul dara itam. buñ mënul dara itam. Ah, waaye lii mu defal. waaye lim nu defal. nan ko sagal. nan ko sagal. fonk lislaam. nan ko sagal defar suñuy nañ ko sagalal defar nañ ko sagalal defar suñuy jëf. defar ko sagalal nañ ko defal. suñuy ku mënul jëf bu doon mënul dara itam. nañ koo sant. sagal googu ñu sagal lislaam. sagal yi mu sagal lislaam. moom lañ koy mën a sant. moom lañ koy noonu rek la noonu rek la nan góorgóorlu bu nan góorgóorlu bu baax. nañu góorgóorlu bu baax góorgóorlu bu baax soññ suñu bopp. waaw ah, ñoo ngi soññ suñu bopp. nañuy nañuy soññ suñu bopp nañuy soññ suñu bopp. di soññ suñuy bopp. di soññ suñuy bopp. suñu bokki jullit. suñuy bokki jullit suñuy bokki taalibe. suñu bokki taalibe. suñu njaboot. suñu njaboot nañ leen di soññ. nañ leen di soññ gannaaw bu ñu soññee soññee suñu bopp. ginnaaw bu ñu soññee suñu bopp di leen soññ. di leen soññ. te nekk ca lañ lañ leen di soññee. te nekk ca lañ leen di soññee. suñu kem kattan. suñu kem kattan. nan ko def. nan ko def. buñ ko defee. buñ ko defee. dañuy mucc. dañuy mucc. adduna bari nay gàllankoor lool. adduna bari nay gàllankoor lool. ak ni mu xewee ci jam li li li làmm yi wax. ak ni mu xewee ci li làmm yi di wax mu di ay jafe-jafe jafe. mu di ay jafe-jafe jafe-jafe yi du dara. jafe-jafe yi du dara. du ci am. dara du ci am. maanaam du ci am jafe-jafe ju am ju am mën a ju mën a am. waaw jafe-jafe ju bu mën a am. noo ko teg suñu bopp. noo ko teg suñu bopp. ku nekk ci la war a nekk. ku nekk ci la nga war a ne. jafe-jafe du am. jafe-jafe du am. njàmbat du am. njàmbat du am. waaye jàmbat li. njàmbat li feeg nekkuñu ci leen war a nekk. feeg nekkuñ ci leen war a nekk li duñ ci jóg. njàmbat yi duñ ci jóg te suñu musiba rek duñu jariñ dara. duñu jëriñ dara te xarab su xarab suñu borom rek la ñuy indi. kon kon nan jéem a nekk ci leen war a nekk. nan jéem a kon nan jéem a nekk ci leen war a nekk. ci la ñuy mucc ci dundu adduna gii. ci la ñuy mucc ci dundu adduna gii. ci teq-teq yi ci naam ay am gàllankoor yi ci teq-teq yi ci am ak gàllankoor yi. ak jafe-jafe yi ni ñu koy waxe ak jafe-jafe yi. ak li tax jàmbat li bari. ak yi tax jàmbat yi bari. dara duñu ci musal. dara duñu ci musal. loolu fonk fonk fonk fonk fonk suñu diine. loolu fonk suñu diine. góorgóorlu ci njub. góorgóorlu ci njub. góorgóorlu ci makaarim axlaaq góorgóorlu ci ma carrément. loolu lépp nag loolu lépp nag. nan koy def te yàlla tax. nan koy def te yàlla tax. mooy tax mu am njëriñ. mooy tax mu am njëriñ. ko def ngir dara. buñ ko def ngir dara. ko def te yàlla tax. nañ ko def te yàlla tax. loolu mooy tax mu am njëriñ. loolu tax mu am njëriñ. nan góorgóorlu bu baax. nan góorgóorlu bu baax xoolaat suñu bopp. xoolaat suñu bopp xool fi jamono ji toll. xool fi jamono ji toll. islam noonu ma ko waxee. islam noonu ma ko waxee fanweer yu tegal rek. fanweer yu tegal rek mu dem këriñ. wallaay mu leen dem këriñ. gaa yi yàlla jàmbaar yi rek. Ah, ak benn benn yu baax yi. benn benn yu baax yi. ñoo ci rëcc wallaahi ñoom ñoom la ci. ñoom rek ci rek ci ñoom rek ci rek tumuranke lislaam googee. wallaahi wallaahi tey jii la. foofee lislaam juddoo. foofee lislaam juddoo. xew-xew yaa nga fay am. xew-xew yaa nga fay am. reyante. reyante boo xam ne teguñu ko fenn. boo xam ne teguñu ko fenn ba ci bisum tey bii. ba ci bisum tey bii. ña nga ca. ña nga ca te teguñu ko fenn. te teguñu ko fenn yàqu rek a leen ko teg. Eh, eh, yàqu rek. yàqu rek moo leen ko teg moo leen ko teg nañ góorgóorlu bañ a yàqu. nañ góorgóorlu bañ a yàqu. nañ góorgóorlu ci bëgg a defaru. nañ góorgóorlu ci bëgg a defaru. dara duñu ko may. dara duñu ko may luy dellu si ndigal rek. lu dellu si ci ndigal li rek. dellu ci ndigal li rek. dellu ci li yàlla bëgg. dellu ci li yàlla bëgg. dellu ci li yent bi bëgg. loolu dellu ci li yonent bi bëgg. loolu lépp nag. loolu lépp nag. mi ngi ak sëriñ bi. mi ngi ak sëriñ bi. noppal nañu ci. so so noppal nañu ci noppal nañu ci. nan xool sëriñ bi rek. nan xool sëriñ bi rek. te jéem te jéem a jàng jàngaat sëriñ bi. te jéem a jàngaat sëriñ bi. nan jéem a jàngaat sëriñ bi. nañ jéem a jàngaat sëriñ bi di ko jéem a dund. di ko jéem a dund. buñ jàngee buñ xamee sëriñ bi. buñ jàngee. buñ xam buñ xamee sëriñ bi. buñ xamee sëriñ bi. dund sëriñ bi. dund sëriñ bi. malaayika yi lañuy rawanteel. malaayika yi lañuy rawanteel. waaye alhamdulilah jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf noo ngi sant nag. ah nee na noo ngi sant nag. sant bu baax nag. noo ngi sant bu baax nag. di sant sëriñ bi rek na ma di sant sëriñ bi na ma ko waxee. ci bi nga xam ne fàggu ci pàggute bi nga xam ne fàggu noonu. misaal mi yëpp. misaal mi lépp. mën naa dellu ci mën nañ koo gisee. mën nañ gisee ci. lépp. lépp. ci Cheikh Mouhamadou Fadil. Mouhamadou Fadil. ci Cheikh Mouhamadou Fadil nii. ibnu Cheikh Abdoul Khadir ak Cheikh Mamadou Fadil Male ibnu Cheikh El Boussoubi eh, ñoom ñaar ñooñu ñoom ñaar ñooñu exemple lañu exemple lañu ci lépp ci lépp diine ci lépp diine ci lépp sëriñ ci lépp sëriñ exemple lañu exemple lañu léegi tey it ñu ngi ci ànd ak seen i moroom yoo xam ne tey it ñu ngi ci ànd ak seen i moroom yoo xam ne ñu ngi ci seen wet ñoo xam ne ñoo xam ne mën nañ leen a wóotu mën nañ leen a wóotu ànd koog ñoo xam ne nag ànd koog ñoo xam ne nag ñoo yor diine ji ñoo yor diine ji ilimaan na ngi nii. ilimaan a ngi nii. ilimaan nga def ba mu nii. ilimaan a ngi nii. ñi ànd ak si noonu nuwaab yaa ngi nii. no nga xam ne fu ñu mën a taxaw ñu taxaw fa ñu ngi fi. ñi nga xam ne fu a a. loolu nag sama bokki taalibe lay lay lay lay na loolu nag bokki taalibe mi lay soññ. ndax loolu kat sëriñ bi moom jàpp na jàpp na mbir mi. dëgg la nee na sëriñ bi jàpp na li mu bëggoon am na ko. ko. kon nag ku ci bëgg a bopp. kon ku ci bëgg a bopp. xool sa bopp. da xool sa bopp. jë jë jë jëmale ci sa lépp. jub jëmale si lépp. def ko def ci muy sa yitte. def ko muy sa yitte. waaye yitte looy dem ba nga xam ne. waaye nit ki boo. adduna rek mooy sa yitte. looy dem ba nga xam ne adduna rek mooy sa yitte sa bopp rek sa yitte. te mënuloo sa bopp dara. te mënuloo sa bopp dara. adduna mënuloo dara. adduna mënuloo dara. nga taloo dara lu adduna. te taloo lu dul adduna. taloo yàlla taloo ala. taloo yàlla taloo ala. damay wax ne. waaw gëm boo gëm dëgg. nee na damay damay wax ne gëm dëgg. bu amee. bu amee. il faut que sopp doxin. il faut que sopp doxin. noonu rek la. jërëjëf jërëjëf fu waay nekk na tàllal na ñëpp tàllal fu waay nekk na tàllal